am suñu ay information en temps réel moo xam ci biir réew mi ak ci bitim réew ci diaspora bi euh, lu ngeen gën a yokk booster rek ñu gën leen a euh, baaxantale vidéo yi di ziare bu baax a baax sanguy tedd yi Serigne Mountakha Mbacké ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir yal na yàlla suñu borom yàggal ko fi loolu may ko wér ak mboolem kullu xalif généraux yi fi nekk yëpp Serigne Babacar Sy Mansour ak mboolem ñi nga xam ne nit diine yi yal na yàlla suñu borom aar leen taxaw leen bu baax a baax Euh, niñ ko baaxoo defee nag actualité de la semaine dañu ñëw ci li nga xamante moom moo xew i ci semaine bi gis nañ euh, njeexan euh, li nga xamante moom moo di atum 2011 bi ñu doon fàttali ci le 23 juin di anniversaire bi nga xam ne 10 ans après ñu ngi ko doon màggal ci lii di nag yenn ci ay kuréel. waaye dafa am lenn loo xam ne mën nañ ko cee déplorer par rapport ak cette manifestation mooy ko M23 bi ñu gis ñu doon màggal ak M23 bi nga xamante ni. ñoo fi nekkoon en 2011 pour quand même euh, xeexal euh, un combat citoyen euh, gisuñ ni 23 juin boobu moo am parce que dañu gis un 23 juin bu xam dañ ko dañ ko xaaj dañ ko xar ñu tas ko ay pàcc gis nañ sax am ñu naan est-ce que du la m moom mooy mooy moo jël sa place est-ce que M23 cédéwul sa place à à organisation de m 2 man j'allais dire que ne non parce que tout simplement bokkuñ même sax ay agenda bokkuñ même contexte yu ñu juddoo parce que M23 juin dafa juddul boppam ngénteel boppam day événement boo xamante ni mën naa jàpp ne mënut du ma wax du amati Sénégal mais dana nekk lu jafe ngir mu am parce que événement boobu c'était un combat citoyen ñëpp ñu jugoon dañu amoon le même objectif et le même but malheureusement li ñu gisaat nii ces organisations yi am agenda yoo xam ne ni bokkuñ malheureusement euh, dañu dañu dañuy récupération politique la ñuy def parce que ku nekk xam ne le bi muy juddu gis nañ que ni ci événement 8 mars yi amoon na juddu ñu nemmeeku ni événement yooyu également c' étaient des sénégalais qui s' étaient euh, pour quand même marquer le désarroi montrer le désarroi seen cëggulu xool seen jafe-jafe ñu jànkuwanteel tax ñu wàccoon mais dañoo gis euh, et que moment bi ñu wàcc on n'avait pas vu les hommes politiques sur le terrain malheureusement ñoom nag bi mbir mi amee ba ñu xam ne événement bi réussir na il l'ont récupéré tuddee ko m 2 mouvement pour la défense de la démocratie malheureusement chaque fois que combat am citoyens yi la ñuy gis ñoom ñooy mener le combat mais après ñiy téye combat boobu ce sont les hommes politiques yi nga xam dañ koy téye te ñoom duñ duñ descendre sur le terrain ce qui est malheureux malheureusement aussi que euh, pourquoi fukki at après xeex bi ba tey tey la wàllu gën a aay on on combattait euh, d'ailleurs le quart bloquant qu'avait proposer le chef euh, d'État d'alors le président Blaye Wade mooy le parrainage bi passé euh, dix euh, deux mille dix neuf bi ku nekk xam na ne euh, cette loi la bi amoon mars deux mille dix neuf xam nañ ne loi boobu noonu aussi c' est la même chose ak car bloquant bi ci bu dee ci combat démocratique ngay mëne pourquoi tey jii ces actes que Macky Sall le président Macky Sall a eu à ont été quand même réussis parce que tout simplement, on n'a pas cette organisation capable à faire face à ce régime. Malheureusement, on n'a pas une opposition capable à faire face à ce régime. On a beaucoup, beaucoup bafoué des règles démocratiques. On a beaucoup également eu des reculs par rapport à notre démocratie. On l'a vu un peu euh, grandir devant euh, Ablaye Wade ñu jàppoon ni xëy na dañu am yeneen avancée démocratique malheureusement on a vu des reculs des points yoo xam ne marqué na ne montré ne que am nañu recul démocratique donc pour man tey la waala gën ay on est tey ji en face à un régime boo xam ne tout le monde pense que euh, li nekk mbébétam mooy yootu troisième mandat gisaguñ combat bi nga xam ne mëne nañ ko par rapport à ça parrainage bi ba tey problème banque fi mëne wuñ ko te man dama aussi M23 euh, est-ce que le changement de tour aussi problème la ci parce que on ne change pas une équipe qui gagne tey ji ko tuddee yeneen mouvement cos M23 yeneen sangam yeneen filiation ñoom seen biir sax ils se tirent entre eux dañuy xeexante di dóorante alors que moo tax ma ne les agendas ne sont pas fii kii xëcc jëmale fii wala ñoom seen biir di saagante parfois M23 Xaski Y'en a marre kenn ku ne seen biir di dóorante ay kuy te pour man gàccal et jox également buntu pouvoir bi mu mën a mener ses politiques malheureusement pouvoir boobu may jeexale mooy tey ji m bu doon tey ndam la succès la dëgg naam dañ ko waroon a màggal ci tey ji même le régime actuel dafa waroon a bokk ci euh, man ci màggaluk 23 juin parce que à l'époque ñoom ñëpp ñi nekk au pouvoir ñu nekkoon dans l'opposition malheureusement tey ji cette partie euh, de cette partie civile, de cette euh, organisation civile est quand même logée à la présidence ña nga foofu ce qui est par njiitu réew malheureusement que loolu mooy teyal xel que askan bi tey ji vomir yenn mouvement citoyen yi parce que gëmatuñu leen mais tey ji bu màggal dëgg doon am le régime actuel président Macky Sall kenn waru ko woon njiitu place de la nation pour màggal ko ak yeneen kuréel yoo xam tey ji dañu doon pour la marche de notre démocratie de notre démocratie malheureusement tey gis HLM Grand Yoff ñee ne fa ñee place de la nation kenn ku ci nekk ak sa agenda yi bokk en fait on a une opposition désorganisée on a des mouvements citoyens désorganisés donc malheureusement le peuple sénégalais ki nga xam te moom moo moom moom le 23 juin moo tax ma ne moom rek moom moom le 23 juin ku nekk koy xëccoo la euh, la volonté populaire ñoom nag bis bu jug jotee dañu xam dëgg à kii